Euh, muy muy loo xam ne ni aussi euh, pour li des léegi ci campagne bi mais objectivement Cheikh Bara est-ce que coow li yëpp nekkul li ko lal mooy yéen da ngeen xam ne waxuma feneen de ndakaaru da ngeen xam ne que mbir yi xaw na kekke coow li yëpp est que nekkul lii si suuf mooy ñàkk kóolute boole ñàkk wóolu seen bopp si Dakar nekk takk bu wóor boole naroon am pour ne yéen da ngeen koy gañe teg si loxo set députés ñëw si yéen loolu moo kekke moo waral maanaam coow li yëpp est-ce que du loolu. ñun bu fekkente ne dégg naa démb Cheikh Yérim Seck di wax ne Ablaye Wade doon na man mobiliser après élection yi ñoom mu perte ko daanaka élection yi jàll Amadou Ba doon na mobiliser élection yi ñoom mu perte ko d'accord mais bi ab Ablaye Wade di mobiliser est-ce que opposition bi dañoo amoon problème mu mobiliser dañ doon mobiliser ñoom tamit mhm. buñ ma saan woote place de l'Obélisque day fees dell. Hmm? M23 buntu pense ensemble dafa fees dell. en même temps Ablaye Wade di mobiliser. Hmm. ñaar ñuy mobiliser bu ñu dajee kenn ki mën naa perte. élection yi jàll Amadou mi ngi doon mobiliser mais soo ko doon mobiliser Diomaye di mobiliser. Hmm. Amadou di mobiliser kon bu moom référence yooyu yërim jël baaxut bii yoon nag kenn mooy mobiliser. adduna bépp génn di ko topp fu mu dem mitinu 3 heures du matin moom doo nga koy def mitinu 15 heures ci bëccëg ñii moom sëñ bi dañuy yor téeméeri oto def ci nit bu demee ba taxaw fenn wàccee gaa yi ci oto yi ñu wër leen nu fotowu dem dugal daal dem ñibbi nga ne léegi ñi mënta am capacité mobiliser ñoom ñooy gañe ñi am capacité mobiliser loolu du analise bu baax yirim arriéral ci loolu nga nekk élection yii man maa la ko wax jàlloo fi yàgg nañoo def émission nag ma chronique la opposition bi laa la wax bu ñu amee quinze députés quinze laa wax de bu ñu ci yegsee. opposition bi lépp. ñëpp boo leen boolee li wallu yi am ak takk wallu li ñoom barte yi am ah pilifor reste yi ah li Amadou Ba di am. ñëpp boo leen boolee mënuñoo génnee quinze députés. kon yéen di ngeen laal cent cinquante députés Pastef. quinze députés daal bu ñu ko rombee fii jàllo kon Pastef cent cinquante députés lu ma bett lay cinquante députés daal danañ ko am moom baalu ko ëpp sax. mais Cheikh Bara 150 députés ngay wax de. léegi nañu dem à la base maanaam ci chiffres yi ñu amoon élection présidentielle bii jaar. bokkut nag di nga jum de. du ma ko jëlee noonu. man pour waaw leeral man damay analyser. leeral waaw. département yi ñu gañe woon ñun xaar nga benn ñu pertaat ko fi. Dakar kekkewul. Hmm? dakaar kekkewul Dakar xam nga lu ñu rawee woon Bart. rawee woon nañ ko pris de cent soixante dix mille fois Bart li tax bu xëyee yeew wut galaas gu bari di ko xëppu ca koñ ba ak xorom moom xam na li xew. ban koñ noonu Baobab. Baobab. dafay kii ay ah, loolu kay du man kay seet waa koñ ngi may dégg. saa bu xëyee moom leen lay liggéey mooy sotti galaas ak xorom. loolu lu muy def xaw ma ko day mystique. waaw yow comme sa xel màcc si wàllu. ah non xaw ma en tout cas xorom su bari. billaahi wallaahi nag li ma la wax dëgg la. loolu day attirer victoire dama ne la xorom su bari lay sotti. Mhm. ak. glace gu bari. glace bi est-ce que ku dëkk baaw a baab dina dina ko dëggal. bis bu set loolu lay liggéeyee sax léegi wut glace ak xorom di sotti. waaw mais mun na nekk pour jàmm aussi. ko xorom si sangoo ko da ngaa ñàkk xorom. glace gi mu naan ko ndax xol bi sedd daa jaawale waru koo sotti ci bunt kër gi daa war a jël xorom si defar ko sangoo ko ndax mu am xorom jël glace gi xuuyal ko naan ko may ci baayam tuuti. ndax seen. non bu ñu dëgg ma baayam dugg ci yëf yi non non ne mbay na jox na def glace jox ci papaam naan ci maa ko wax mais léegi yaa ngi woon si analyse yi dama ne la li ñu gañe woon laa wax analyse bi ma def mooy fi ñu gañe woon fépp ci élection législative présidentielle mhm. bu fekkonte ne benn département bokk ci ñun cent dix députés am nañ ko ñun Tamba lañ pertoon Podor Bakel je pense pertoon ngeen ko Bakel defe naa ak euh, Medina Yoro Fula su ma dëkk yooyu lañ pertoon. Fatick dañ ko perton ak Fatick ak Foundiougne. Mhm. muy juróom-ñaari départ huit département daal lañ pertoon dama ko jàppatu huit la. léegi bu fekkoonte ne maanaam huit département yooyu dañ koo pertaat ñun ñu ngi ci cent dix léegi departement yooyu man li tax ma gëm ne dañ koy gañe man analyse politique laay bokkuma ak gars yi nga xam ne dañuy toog Sonko di mobiliser nga naan day fay trois mille cinq cent day fay huit mille. tam wóor la man a waat na yow li ngay wax xam nga ne du dëgg man jàllo Sonko laay faral waaye billaahi masuma fàttali ko fu ma toogee di wax loo xam ne wóor na ma ne waxuma dëgg man na maa jàpp ne lii mooy dëgg ma di ko wax amaana man ma juum ci sama dëgg waaye xam ne man waxuma dëgg ma pare ma koy wax du ma ko def kenn jaralu ma ko ci àdduna mais yow yirim toog naan Sonko day fay trois mille cinq cent day jënd sandwich di jox booy te moom xam na xaqulaay taalaam ne li muy wax du dëgg man du ma genre boobu gis nga Fatick mën nañ koo gañe xam nga lu tax demal xool législatif deux mille vingt deux Diomaye Faye mu nga fa amoon treize mille voix département Fatick deux mille vingt quatre yeewi askan wi yeewi askan fa amoon treize mille voix deux mille vingt xam nga treize mille voix yooyu fan la mujj dem. Hmm. mi ngi ci neuf mille voix loolu ñaata voix ci dolli vingt mille. Hmm? vingt mille et quelques. vingt mille et quelques voix. Hmm. lañ gagné entre deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois. 2024. Hmm? Hmm. boo jëlee Foundiougne tamit même chose rek progression bu garaaw la am xam nga amadu Ba ma maanaam euh, coalition benn Bokk Yaakaar ñaata la amoon ci local boobu mi ngi amoon ay soixante quatorze mille voix la amoon euh, Fatick dafa wàcc ba quarante quatre mille ñaata ñaata voix la perte bari hmm. xam nga kon ku jógee foofu di daanu si. liñ mën a xam mooy da ngay daanu continuer ki jógee treize mille di yëg liñ mën a xam mooy day yëg continuer même fu njuñ soo jëlee Tamba tamit man jàpp naa ne ak bi fa ko demee nii ak per de pouvoir bi fa amoon parce que Tamba euh, li taxoon ñu koy gañe man du ma am ñu may tudd del may bës mais ay ay tiktak yu ndaw la mooy dëkk village yi te bii yoon Pastef dañu pol dañu dañu lii ba pare am heureusement maire yu bari bàyyi ñëw ànd ak ñun. transhumance daal dégg nga. léegi loolu mën naa tax Tamba ñu gañe ko bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee Kaffrine dañ koo gañe woon bu dee fu mel ne Podor ñii dañ fa am farkuloo Bakel laay wax. Mhm. dañoo farkuloo mhm. opposition bi. amuñu fa liste. Afrique de Nord moo nekkoon huitième huitième huitième kii bi ñu pertoon mhm. huitième région bi dañ fa am farkuloo bu dee fu mel ne podoor li tax ma am yaakaar ne danañ ko gañe mooy bii yoon am nañ fa ministre de la ministre de euh, santé. fa la nekk nekk candidat. Mhm. mais en même temps Cheikh Omar Anne dafa nekk candidat Abdoulaye Daouda Diallo nekk candidat ba pare beneen problème bi mooy Racine si néew nekk candidat. te raw gàddu la. raw gàddu la léegi da xam ne Racine Sy. Cheikh Omar Anne. mais Cheikh Omar Anne xam nga mu ngi sur ñoo bokki nit. lenn rek lañ man mooy séddoo mais mënuñoo jël militant Pastef mais kii mi ngi foofu tamit euh, ki nekk ministre de la justice damay fàttali maître Aïssata Tall Sall Aïssata Tall Sall mi ngi ci liste bi mm, waaw mi mi ngi ci mi ngi ci national bi mais moom tamit waaw mais ñoom ñoom am na fa tànk dama ne la mais ñoom ñoom Racine Sy xam nga ne yow du jël nitu Pastef Abdoulaye Daouda Diallo du jël nitu Pastef mm-hmm. ah waaw Cheikh Omar Anne li ngay njort foofu mooy mm-hmm. ñu séddoo seeni voix ñun ñu ñëw rombale ñu séddoo seeni voix ñun ñu ñëw rombale man loolu laa fay gëm loolu laa fay yaakaar bu dee Fuuta nag kooku moom mu neexut a analyser Diallo parce que doo xam ba xam ñan ñoo nekkoon Mauritaniens ci ñuy wate ak ñan ñoo nekkoon waa Fouta. ba si Podor ah. waaw moo tax ma ne la bu dee Podor sax moom problème boobu laa ci laa ci laa ci am ci yaakaar mais bu dee Fouta moom damaa ragal xamul ñoo ca nekkoon Mauritaniens ak ñan ñoo ki bi yoon nag ministre de l'intérieur maa ngi koy bi nag fi mu war a nekk mooy. fi mu nar a nekk mooy bu ay Mauritaniens ñu bëgg leen a jël indi leen ñu ñëw di ñu di wate ci suñu place duñ ko nangu. mais na tëj frontière bi comme carte de Sénégal waaye dama ne la defuñu ko loolu loolu duñ ko nangu de jëli nit dugal leen ci ab ay kaar fay leen ñu ñëw nga tàntal leen ñu xëy wateel la demande Mauritanie nekki Mauritanie nga bàyyi ñoog suñu problème duñ ko nangu mais képp ku am carte d'identité ku am carte d'identité bu la ko jaralee carte électeur waaw ku am carte d'identité bu la ko jaralee nga paasal sa bopp nga dugg wate mais luñ nangu kenn dem Mauritanie di gur gur ay nit di indi duñ ko nangu léegi Cheikh Bara dégg nga mhm. taban sax am na ci ñu ma dégg ñu naan dañ daan jël carte d'identité yi réservé fii ci yi ñu jël si wut dem jox leen ko ñu ñu lijjanti ci bul xam daal ah d' accord voilà kon yow daal njortu nga ne daal 150 député fa nga table mais man daal li ma jàpp mooy moom département yi ñu gañe woon ñun danañ ko gañewaat te am na département yoo xam ne gañe wuñ ko woon te danañ ko gañe d' accord parce que la desoon ñu gañe ko bëriwut te loola bu ci tegoo 150 député yi moom day mat sëkk Mbacke seen seen euh, meeting bi nga fa def am na ñu jàpp ne Mbacké moom moo battre record mobilisation. Mm-hmm. Euh, Mbacké par rapport ak Pastef ak élection yu jëm at euh, ni fa yenn coalition investir ndax jàpp nga ne foofu dina jafem déet. non Mbacké foofu amut combat xam nga maire ba ñëw na. bi doon yuuxu waaw ñëw na xam nga moom Mbàkke la dëkk nag comme moo nekkoon opposition euh, ak ñun xam naa bi muy ñëw war naa mën a sóoraale sax ne loolu dina am <laughs> parce que du ñàkk quoi parce que politique moom. day jug di wàll. Euh, waaw politique noonu la mais ak lu mën a nekk rek mooy ab gox moom boo fa nekkee yàlla dogal nga doxa dox bañ ne élection ñëw na nga demoon ak euh, yeewi askan wi defe naa la demaloon. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. Euh, no booba sax du woon Yewwi Askan Wi ah, euh, kii la woon daal Pastef daal amoon nañ fa ay liste quoi mooy local la woon. local Yewwi Askan Wi la woon Yewwi la woon. mu ñëw raw ñu kooku maanaam même bu fekkente ne lu mu tuuti tuuti rek am nga loo tekk ci politique. Mhm. kooku bu ñëwaatee dollikuwaat ci ñun ah man damay gëm ne ah da ndam li day gën a yomb te noonu la amee ay Mafari Ndiaye. ñu baree baree bari ay responsable politique yoo xam ne yaa ngi layal eh. transhumance bi naay c'est ça non xam nga transhumance moom jàlloo amut amut déedéet ne woon man am naa yaa ngi wax sànq man am naa preuve yaa ngi sànq Sonko ne woon képp ku fépp fu nit nekkoon mhm. ba le vingt quatre mars mhm. des fa mhm. Gallo le vingt quatre mars mu ngi doon jàppale Amadou Ba la moo tax mu des waxul mu des fa waaw xam nga loolu moom dañ na a ngeen des fi bu ñu lànkee moom mënu ci dara waaye li nga xam ne non non li nga xam ne principe la bu ñu Sonko tegaloon déet jàllo bu ma neexee ma ne la toogal nga ne tooguma fu waaye nekkoon des fa kooku moom ay waxam la. mais mooy buuma transhumant dit mais moom da fu waay nekk deux mille vingt quatre toog fa mais bu gars yi toogut na moom li mu def day wutu yat mais li mu waxoon kay mooy élection yi ma jëm muy deux mille dix neuf mu ne bu Macky Sall defee déclaration ne man lay jàppale du ma def déclaration ne ko doo ma jàppale. su Ablaye Wade defee déclaration ni man lay jàppale duma def déclaration ni ko dooma jàppale Sonko ko waxoon mi ngi nii ci sama téléphone bu la neexee ma teg nga dégg loola moo waxoon ba léegi ci la nekk mais li tax ma ne la transhumance amut man waxantuwuma ko nga may génneel benn nit ci liste bi ci département bi ak national bi nga ne ma kii amu ci kon jàpp naa ne ñun wutaluñ place ay transhumant beneen bi nga xam ne lay bu yomb la pour que ñu xam ne rek transiment amul mooy ñun ñan lañ wax ay maire hmm? mhm. baaraag ay maire la mhm. hmm? euh, am mu du Thiaw maireu taset maire la mhm. ah maire yi ak Galaw Ba maire la waa léegi ñun nan lañ mën a ñëwee fekk euh, Serigne Gueye Diop yor maire yi nekk am maire bi ñu ko bëggee dénk ndomba tànk dañ ko ne da dem nga démissionné ji parce que doo cumuler mu dem démissionné ñëw ñu doog ko jox ministère fekk Euh, Birame Souleye Diop yor yor nekk maire maireu Thiès ñu ne ko pour nga mën a am fii ba tànk demal démissionné ji te ñëw mu dem démissionné ji ci maire am ñëw ñu jox ko su ministère ko nekk maire dem démissionné ji ñëw pour nekk maire pour nekk ministre euh, nu mu tuddati sax ministre de la femme. Maimouna Dièye Maimouna Dièye nekk maireu Yaraax. non non euh, kii Padois. Padois. Mhm. ñu ne ko léegi da ngay démissionné pour nga mën a jël dara waaw maire yi ñëw ci ñun kay xam nañ ne ñun. duñ def kimil kon kay ñoom xanaa sax wut si wuñ poste loolu rek doy na sëkk kay ci lu leer kon ñoom ñoo la gën a xam ne ñun ku yor poste maire boo ñëwoon sax même boo bokkee ci ñun te yor poste maire duñ la jox poste élection législative yii député yii ngay gis doo ci gis kenn koo xam ne dañ naan la kii. mi ngi ci liste bi mi ngi ci liste bi ba noppi nekk maire. Khadija Mahécor kan moo ko gën a placé pour nekk député mais maire la Bilal Diatta Cheikh Aliou Bey. Cheikh Aliou Bey député la nekkoon investiraatuñ ko hmm? wala boog yaakaaruma ne mi ngi ci liste bi. nekku tel voilà gis nga kon ñun li ñuy def ku ñaan ñu ay a ngi ñëw ci yéen dañuy wut si place wax dof ngay wax ñun ñi nekk maire ci ñun mënuñoo boole kimil ngay jëm di jël ay yeneen i maire léegi loo leen di jox. mais am na mais ku gis nag suñuy élection mhm. xam ne wulli yu metti dina am nga ne man wulli yi du ma ko fi fekk damay daw. boo ñëwee dugg ci ñun ñoom Aji bi ñu investir. Aji Mbergane Kanouté ñëwul ci ñun. mais yéen lay jàppale fausse information ah, moom bu ko neexee mais dama ne la kenn jëliwu ko kenn an euh, euh, doyen àllakan mi mu doon wax àllakan def na vidéo weddi ne moom jëliwu ko te ñëwut ci moom su ko neexee nag mu def vidéo am kooku moom la ñoom galo ba daal moom ay maire lañ Cheikh Thioro ànd na ak ñoom convaincre na leen ñoom ñoo bëgg ànd ak Cheikh Thioro ñëw nañ ci Sonko Sonko mais man Cheikh nu ma ko dégloo mu wax Sonko nee na leen ahlan Cheikh Thioro nee na leen ahlan ahlan wa sahlan mais Cheikh Thioro su bienvenue Cheikh Thioro boppam ah. est ce que ànd si parce que ni ma ko dégloo keroog mu wax mu ne ñi fi nekkoon di politique ñoom ñëpp par la force dañuy dem retrait wax ko avec insistance mais kon Cheikh Thioro moomu est ce que waxul woon nag transhumance ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem kii Abdou Bara Dolly est ce que du moom moom wax ji est ce du Moudou Mbacke Bara Dolly moom moom ñi nga xam ne ñoom depuis APR ba léegi fu fu ngi ci te ñoom fa nekk ay moom la leen wax ji Gallo suñu allié la est-ce que ñëw bi mu ñëw neex na ko. galaw ak Gallo Cheikh Coro ko indi ndaje moomu Cheikh Coro ko moom ko fa ko fa wow doo fa ñëw mooy coordonnateur Mbacké ak Touba Gallo moo nekk maire dëkk ba gama ne la Gallo bu dul woon ak nekk ab nekk suñu allié ku toll ne Ousmane Sonko buy ñëw Mbacké en tant que maire ñun war nañ koo éviter mu ñëw toogal dalalal ñu ko parce que autorité la su ci dalalee nag daan ne man dama leen di jàppale si yéen lay àndal ah mais loolu kay bu doon wenn kartam dong la ñuy indil bëgg nan rawatina mu nekk maire mais mën na la xañ ay carte parce que mënuñoo xañ wenn carte laa la ñoo xam ne ne ay principe moo tax ñu àndoon ak waa taxawal taxawal taxawal lan mooy transhumance Idriss Seck bi ñu naan dafa transhumé dafa yi da ngaa gis ndombal tànk li ñu ko jox bi mu lay yëgal ne dem naa rek mooy yëgal na la maa ngi fii léegi Omar Sarr Diagne faada koo fi mën a jël bis bi mu lay yëgal na maa ngi transhumé bis boobu la la yëgal ne maa ngi seere nangam ñi nga jot wax ne dañoo transhumé lan lañ yor ci suñu yëf fan lañ bokk ci liste bi ban ministère ban lan lan lañ yor. mais beneen tamit yaa ngi wax. jàlloo nag ñun nag mënuñoo rëcc nag. non dama lay ñun suñ ñun suñ taxawee. Mm-hmm. Omar Sy ministre de la santé bu taxawee nañ ñun waa Pastef la ñuy liggéeyal ku nekk Pastef la ñuy njëkk jël nangam nangam ñu ne tey nga dee da ngaa war a ubbi ñëpp ñëw. Mm-hmm. boo nee ubbi nañ ñu ne lu tax nga ubbi ko gaa yaa ngi ñëw. Mm-hmm. waa léegi léegi fu ñu jëm na. docteur Ibrahima Sy mais fu ñu jëm. mais mais Cheikh su Sonko nee na woowut kenn waaw man woowu ma kenn waaw devant sax des alliés mu mel ni nga am xew mhm. am na ñëw si xew mi nga naa man invité wu ma kenn mhm. indi malaise foofu mhm. mais loolu garaawul Bara Gaye ne dañ koo jëli Waly Diouf Bodian su ma juumul en tout daal da koo démarché waaw ba tey loolu yàqu ko de non ba pare moom mu ne woowu kenn da ngaa fàtte ne ñu mu gis mooma Déthié waxtaan am mu ne woowu ma kenn baal ma ñëw rek kon la mooy woote si politique baal ma ñëw rek xam nga Baara ak Sonko dañuy ay xarit yu bokkoon ko yeewee askan wi bokkoon conférence de leader. Mhm. tey numéro mën naa am ñu ngi déggante téeméeri yoon woowuma kenn Baara Gaye na ca bañ a bokk ndax dañoo nekk xarit ñoom ñaar bu dul dara kooku moom bu ne woowuma kenn Baara Gaye ne woo na kooku mën nga ko cee génne ndax xëy na Sonko ak Baara Gaye mën nañoo déggante bés bu ne téeméeri yoon kooku ñun xamuñ ci dara mais li wóor te wér mooy Sonko moom demandé wul kenn xam nga sax boo nee demandé wu ma kenn mooy personnellement ñëw naan la léegi kaay nga ñëw jàppale ma fii ma def lii nga def laa waaye kuy war a dem Mbàkke kay naan eh, carte waa ngi nii wateel leen ma ko kay yaa ngi woo ñëpp moom kenn daa woo ñëpp ku wuy si nag. xayrun. beneen élément de var. waaw yaa ngi naan Sonko kenn mënu koo var. ayca Sonko moo ne woon.